dalee nag ci ajo news point info ñu indi leen li gën a fës yëglekaay yi Dakar nar naa tàngaat tey waa PDS ñoo ne dinañ amal seen meeting tey ba Samba di ca Demba le populaire di laaj ndax àndandoo Abdoulaye Wade yi dinañ teggi waxi buur amal seen meeting préfet Dakar moo leen tere woon bépp doxu ñaxtu wala meeting ci Dakar waaye maître Amadou Sall bokk ci PDS nee ci nii wala ci naa dinañ amal seen yëngu-yëngu yooyu le témoin ni waa tàkk wàcc ci mbedd mi joytu ko moo ciy pexe tey jii la bëgg amal seen meeting ca place de l'obélisque suba ñu amal fa ab toogu ñaxtu te àllarba bu nekk bëgg nañoo wàcc ci mbedd mi Christine Lagarde agsi na Sénégal démb njiitu FMI di kuréel gi dimbali réew yi néew doole ngir seen koom-koom jëm kanam noppi na ngir jàppale Sénégal Le Soleil di wane Christine Lagarde ànd ak Macky Sall muy wax ne FMI dina plan Sénégal émergent yokk ci ne juróom jaaxle nañu l'observateur ni policiers yi nekk Kidal du balu fetal waa Ansardine wala MNLA ñu leen di bëgg a rey waaye xiif bu tar moo leen di bëgg a yóbbu ardo policiers yi ak militaires yooyu ci waa MINUSMA la bokk di kuréelu takk deru mbootaay xeet yi yor kaaraangi foofu ca Mali doomi Sénégal yi nee na ab som bi rek lekk seen ravitaillement ma nga tag ca gaawoo ay weer a ngi nii fu ñu dëkk sax amuñu ko ay tànt la ñu samp waaye bu ngelaw ñëwee na ak pain ay jaar-jaaram ci yëglekaay bi nee na day tux day naan te day njaaloo nëbbu ci dara nee naan sàngara dara nekku ci li bon mooy màndi bay lang nettali na tamit ay jaar-jaaram ca Italie nee nekk na fa atum lëmm amul fu dëkk ci tefes gi la daan fanaan jàngalekat bi moom du bàyyee kenn xaalisam l'observateur ni ñu ca Malika benn professeur anglais moo fa jam beneen jàngalekat ni moom da koo abaloon cent mille francs di ko fayeeku waaye jàngalekat a muy dem coupe d'Afrique yëglekaay bi di njort ab deal bu amoon ci diggante entraîneur bi ak kuréel gi yor wàllum football ci Sénégal doomi France ji li mu denceloon waa Sénégal lépp génn na ko ci l'Observateur Alain Giresse waa Sénégal dañoo teg seen équipe bi fu mu àggul naqarul na tamit na ko taskatu xibaare doon pamt pamtee gannaaw ba Algérie dóoree lii moo gënoon fas yëglekaay yi di jox dig daje altine incha allah